Euh, vers le prétoire il va être installé par le président euh, du conseil constitutionnel sëñ bi euh, sëñ bi moom rek <laughs> nga xam ne <laughs> coono coono ñeel na la <laughs> euh, un grand moment un moment solennel mais euh, un acte qui va changer sa vie à jamais Euh, dans quelques instants, il sera investi de la mission euh, de présider aux destinées de 18 millions euh, de Sénégalais dont la majorité a décidé euh, de le porter au pouvoir au premier tour. Euh, donc Badio Camara euh, en discussion avec le président élu. Alors, wow. un mot sur la waaw man de jàpp naa ne bi mu joxe poignée de main monsieur le président du conseil constitutionnel Mamadou Badio Camara jamono boobu ci la gëj a nekk Basiiru ni ñu ko daan woowee poignée de main bi rek c'est plus que solennel dinaa ko xaw a tooñ tuuti parce que sa démarche dafa may wan ni wala dafa may tegtal ni il a fait les arts martiaux ni muy doxee mm. je pense que def na Vovidam Viet Vo Dao def na mm. aussi tamit Kung Fu ah bon waaw. c'est des informations. Euh, yoo xam wala da nga ko xool rek démarche am non démarche ciy feeñ. ah d'accord mais aussi tamit lu ma xam la te su ma juumulee université Anta Diop Dakar la ko doon defee. Mhm, mhm. waaw donc ba bi ñu koy jàpp dem na entraînement. Mhm. waaw ba bi ñu koy jàpp le vendredi su ma juumulee wala ci veille bi. wala quelque euh, waaw ci veille bi je pense dem na dem na dem na dem na dem na entraînement léegi man dama buggoon ñu ñëw ci prestation de serment xam nga yonent bi dafa wax ni. ah il est bien habillé ah. waaw waaw il est bien habillé. très bien habillé il c'est du gris pétrole je pense. benn <laughs> gris pétrole gris sol. <laughs> il est bien habillé xam nga keroog bi ñuy dem bi ñuy dem euh, si si gris pétrole la. keroog bi ñuy dem fële bi ñuy dem euh, pale xam nga pale ak présidence bokkul bi ñuy dem palais keroog euh, ils ab habillés ñoom ñëpp en bleu xam nga bleu. boo xoolee c'est la couleur du travail. Mm. donc visite boobu aussi tamit c'était une visite de courtoisie une visite guidée boo xamante ne bii président waxtaan nañu ci yenn dossiers yi mais de manière superficielle quand hmm. mais tey bu ñu demee ba ñu transmettre ko la charge boobaa nag kii la ko président di wax secret yoo xamante ne bii mosu ko wax ne jox ko croix bi ñu takkal ko ko jox ko clé bi tey yi bu nekkoon le Sénégal était doté. d'une arme nucléaire. ci la koy jox code bi maanaam tey la koy wax secret yu mu mësul wax doomu aadama ci kaw suuf ndax dina ko wax keneen loolu beneen questionnement la. léegi maa ngi koy wax sànq ne sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni bu ngeen di waat dee leen waat ci yàlla wala ngeen noppi te texte bi defe naa yor yor nga constitution bi. Mhm. su ma mënoon wax ban alinéa la mais de toute façon soriwul 27 jëm jëm ci kaw dafa wax ni en présence de jë et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, d'observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution su muy juumul 134 103 103 articles la et des lois loolu c'est des centaines de lois au Sénégal de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire, la superficie du Sénégal et l'indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. loolu la texte bi wax maanaam may mun a ndur fay lii kuñ ko sas doo taree opposant lii kuñ ko sas doo tal nekk fii di dóor dàqeeg di tëjëk a tijji waroo ko tal waruloo ko tal non waruloo ko tal sax may mën a dool fay maanaam lii kuñ ko sas di nga xam ne même bu nekkee da nga am taux de croissance boo xamante ne bii ça dépasse les 4 pour cent nga xam ne pour certains économistes ça relève de l'embellie mais une croissance à boo xamante ne bii c'est objectivable parce que pour certains c'est un taux de croissance boo xamante ne bii c'est extraverti di nga fexe ba ñu am un taux de croissance introverti lii kuñ nga am réew moo xam ne tu as deux cent cinquante entreprises françaises qui emploient plus de trente mille euh, jeunes trente mille sénégalais di nga fexe ba nga xamante ne bi ñoom lañ tey am day des ci biir réew mi may mun a ndur fay lii képp koo xamante ne bi dañ dañ la ko sas au pire des cas di nga revoir pas mal de contrats et au pire des cas encore win-win lay doon maanaam lii kuñ ko sas di nga fexe ba nga xamante ni tourisme bi dafay dox Maimouna Ndour Faye lii kuñ ko sas waratuñu agressé Maimouna Ndour Faye lii kuñ ko sas maanaam nit waratul toog di xalaat jóg song Maimouna Ndour Faye dem ñibbi lii kuñ ko sas war ngaa fexe ba journalistes yi am liberté d'expression et non une expression sans liberté lii képp koo xamante ne bi dañ la koo sas war ngaa fexe ba transport ñoŋ war ngaa fexe c'est documenté par la constitution nit ñi am sañ-sañu def choix ci li ñu bëgg a jàng. Mm. moo xam c'est des arabophones moo xam c'est des euh, francophones lii képp koo xamante ne bii dañ koo sas texte document de plus de cent et quelques pages cinquante pages bi nga xamante ne bii mu ngeen tuddee projet résumé ko jaay ko sénégalais yi war ngaa fexe fexe fexe fexe boo deful lépp tamit li ci gën a am solo ci sa quinquennat nga def man jàpp naa ni c'est ça la prestation de serment donc amul lu gën a féete kaw la station la plus élevée de la seigneurie à travers le président de la donc man jàpp naa ne wàññi nelaw la def itte soxla sénégalais yi comme ni ko Cheikh Ahmed Tidiane Serif waxee donte dafa nekk gannaaw étoile polaire dangaa war dem ba foofu jox ko sénégalais parce que en privé Abdou Diouf le disait man seen surga donc il est en fait le premier des sénégalais mais daf ñëw dafa war a nekk le premier des sénégalais ci lépp en vertu ci lépp en comportement parce que on n'est jamais assez on n'est jamais assez prêt pour être président de la République mais quand même a des qualités l'écoute l'humilité se faire entourer par les meilleurs collaborateurs mais au, sous nos tropiques en Afrique on a des présidents qui ne sont pas mal entourés entourés c'est parce qu'ils ne sont pas entourés loolu mooy affaire bi moi je pense que ni daal en résumé Bass comme je le surnomme Bass Ndengler parce que on se connaît parce que je pense que c'est l'affaire de Ndengler qui l'a révélé aux Sénégalais donc aujourd'hui bés niki tey waratul am benn itte lu dul nekk suñu mbindaan bu doon ci arab da nga koy tuddee xaadimu xaadimu li Sénégal yi maanaam moom mooy le serviteur des sénégalais bu ko fi kenn utal nag leneen di hypertrophier di jëfandikoo article quatre-vingt man je pense que ne tey li nga xamante ne bii moom lañ ko jox bu bu dee pare na pour jël ko ba prêter serment. amatul beneen itte lu dul di dox ci suñuy. ci suñu waaw ci suñu waaw. tey dafay. dafay dafay tijji beneen ère. 2012 hmm. euh, ma Macky Sall euh, ñëwee. Hmm, dafa am ay hmm. pratiques yu ñu doon jooy. je me rappelle en 2012 prestation de serment ba. boo déggee ñenn ñi di wax da doon xalaat ne désormais Euh, dinañu dund ci Sénégal bu naat ci Sénégal boo xam ne euh, loi ak règlement yi dinañ ko jëfandikoo ci ku nekk mm-hmm. euh, sans sans exception ci Sénégal boo xam ne njottuñu woon 2012 ne dinañu dund lu metti jafe-jafe yu ñu metti yu ñu dund mm-hmm. diggante 2021 ak 2024 mm-hmm. tey aussi le, le même espoir renaît les Sénégalais njort nañu ne dina dinañu dund dans un Sénégal qui va changer de visage au propre comme au figuré dinañu bind dans un Sénégal boo xam ne y aura de l'équité y aura de la justice dinañu dund ci Sénégal boo xam ne état de droit dinañu ko respecter euh, surtout que ñii nga xam ne ñoom ñoo hérité des rênes de ce pays là aujourd'hui euh, yàgg nañu ko décrier te ñoom dund nañu les les les les les travers euh, de cette de cette de cet état de droit là on est encore investi du même espoir euh, Pierre euh, par rapport ak li ñu dund ak expérience bi ci peuple bi jëlee ak euh, alerte bi nga xam ne moom la peuple bi alerte est-ce que jàpp nga ne les cinq prochaines années Sénégal dina am stabilité euh, politique sociopolitique euh, Sénégal dina jànkonteel moins de crise comme ni ñu ko defee ci fan yi ñu génn on a souvent eu référence à cette constitution Euh, bi nga xam ne moom moo organiser euh, le fonctionnement de nos institutions euh, dinañu doon jël comme unique wéeruwaay lii nga xam ne moom mooy suñu constitution te duñ ko galvauder. bon déjà xam nga li nga wax nii rek moo lay wan nii lii du fi guléet fii ku fi fal président nga waat prêter serment. promettre une nouvelle ère promettre une nouvelle ère et xam nga ñun Sénégal on a un conflit de modèles mooy suñu problème. c'est ce qu'on a appelé les états postcoloniaux xam nga dans un état postcolonial il y a un conflit de modèles d'abord il y a eu on n'a pas su jeter un pont entre ce qui a été notre histoire avant la colonisation avant l'esclavage et ce qui a commencé à être notre histoire à partir de la après la parenthèse de la période coloniale c'est-à-dire à partir de 1960 donc il y a effectivement un conflit de modèles te bu ñu jëlee suñu histoire dañuy gis ni nasaraan yi bi ñu fi ñëwee ay ceddo lañu fi fekk fekk fii ay kilifa diine maanaam ñun suñu aada ak suñu cosaan ceddo da ci bokk diine bokk ci parce que l'islam ay entré au Sénégal traito avec le califat du du Sokoto et du Massina ci la islam dugg Sénégal très donc bi ñëwee ñooñ lañ fi fekk am na buur yu dem tuub am na ñu tuubul. mais dafa am suñu aada ak suñu cosaan wax na lu am solo nag fii ku fi judd ku ne war ngaa am liberté jàng la neex war ngaa am liberté lala neex nga topp ko liberté en tant que telle ce n'est même pas négociable je suis d'accord avec toi. c'est non négociable. c'est non négociable. c'est un acquis waruñu nangu kenn ku koy foqati ci ñun ak ci lu mu mënti doon nag. yaa jur sa doom am nga gis-gis ci moom nga ne kat sama doom ji lii laa bëgg mu jàng parce que dafa am tamit loo xamante ne ni dañ ko war a accepter mooy accepter notre histoire coloniale nu décomplexer de cette histoire coloniale là parce que constitution bi moo ne la langue officielle du Sénégal et le français la première implication pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi c'est que ku fi judd na nga jàngi français parce que c'est la constitution xam nga yaa ngi wax équité di wax justice justice mi ngi commencer ci égalité des citoyens mënumaa xam li ne fii yaa ngi dégg te sama nawle xamu ko du ñu mën a dëkk donc conflit de modèle boobu daf fi am nous avons l'influence occidentale nous avons l'influence orientale nous avons l'influence euh, arabe mais comment faire en sorte de créer cette hybridation-là dans un ensemble cohérent et satisfaisant qui nous permet de mener notre existence en paix, je pense que nous l'avons réussi jusqu'ici et ce n'est pas négociable. beneen bi mooy l'espoir mais mon a damay yaakaar man damay ragal yaakaar tasaat yaakaar waaw damay ragal parce qu'on n'a pas posé les fondamentaux mais mën nous sommes dans un pays où il millions de personnes yoo xam ne jàngu jànguñu métier jànguñu alxuraan jànguñu lekkool mënuñu dara nous sommes dix-huit millions te ñooñu ñi ngi am diggante fukki at ak juróom ak quarante ans ñooñu noonu leen di wutalee liggéey la question de l'employabilité c'est une question qu'on doit poser la question de l'adéquation de la formation et du marché du travail c'est une question qu'on doit poser ñun la ñu bëgg ci Sénégal il est bien beau de parler de renégocier des contrats de parler de partenariat win-win mais encore faudrait-il nous démontrer que les partenariats en cours ne sont pas des partenariats win-win on a comme l'impression que depuis que le Sénégal existe tous les partenariats que tous les présidents qui sont passés par là et toutes les administrations ont signé avec les partenaires bilatéraux ont été en défaveur du Sénégal mais loolu bu doon dëgg kon Sénégal du yegg si fii tey ndax amuñu dara au lendemain des des indépendances on avait quoi on n'avait même pas d'économie loolu bu doon dëgg du ñu yegg si fii effectivement il y a moyen de renégocier certains termes mais on ne peut pas dire que le Sénégal a du pétrole le Sénégal n'a ni la technologie ni la connaissance ni ni euh, les les hommes qu'il faut hmm, pour aller exploiter ce pétrole-là tu signes des contrats avec des multinationales qui mettent des millions de dollars par jour pour exploiter ce pétrole-là ba pare nga ne yow tu vas avoir le contrôle de la compagnie par exemple nommer le PDG nommer le DG alors que yow sa dërëm demu ci xam nga may mun a bu quand une société vient pour explorer la pétrole du Sénégal Sénégal du ci def un franc danaan ko demal seet soo gisee ñu xool nu ñuy def boo demee ba gis pétrole bi nga ñëwaat ne ko gis naa pétrole bërëb sàngam nangam ak sàngam def say étude ba teg ne réserve yi nangam la mu ne la waa d'accord mais loolu léegi xaaral non c'est important mhm. parce que on a trop parlé de pétrole et de gaz et on a fait croire aux gens que le Sénégal ni gagne rien c'est important mais woon la désinformation là dafa doy un moment ñu toog ñu wax lan moo fi am nan la ñuy seetee pétrole nu ñuy gisee pétrole bu ñu ko gisee ba pare nan lañ koy exploiter la majeure partie des gens qui parlent du pétrole n'ont pas lu le code pétrolier mais Pierre euh, bi jeex na à partir du moment où Bassirou Diomaye Faye va être investi euh, ñu jox ko les les les armoiries de la nation vous vous rappelez en 2012 souvent les opposants ils ont un discours démagogique Macky Sall dafa promettre ne bu ñëwee il va renégocier le contrat de l'autoroute à péage. et 500 000 emplois par voilà. an en plus. 500 000 emplois par an. <laughs> le carburant mhm. bu ñu jegewul Mali. Mhm. en tout cas va coûter moins cher. Mhm. Euh, à l'épreuve de l'exercice du pouvoir non seulement il n'a pas renégocié le contrat mais tranche autoroute beneen bi nga xam ne ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon war a tabax daf ko joxaat Eiffage. c'est presque en deux mille euh, en deux mille euh, vingt ou deux mille vingt que le contrat a été renégocié et puis ñu xoolaat yenn pàcc contrat yi ñoom xëy na bañ daan wax euh, ils avaient besoin de manipuler les les les les masses euh, et peut-être que xamuñu woon Euh, le modèle de fonctionnement de l'État les relations entre l'État et ses partenaires techniques et financiers mais ñu xam am na discours boo xam ne dans six mois dootuñu ko xam déjà bi ñu leen bi ñu leen nommé bi ñu leen falee Euh, commencé nañu naan dañuy tijjeeku ci suñuy partenaire technique financier alors que ñoom ils promettaient euh, nu mu tudd un orage euh, à ces partenaires techniques et financiers est-ce que loolu du dakk tey xam nga may mun a lii ñuy wax ni c'est important xam nga lu tax question bi nga posé moo tax on a encore de l'espoir te bu ñu bañee nit ñi seen yaakaar tas mu metti ci ñoom nañ leen wax li nga xamante ni nii moo am parce que bu dul loolu ñaleen fal ñoo leen fay fekk jëlee leen fa parce que espoir bi moo rëy li ñu leen promettre dafa rëy te ñun ñi nga xamante ne nii xam nañu xam nañ ni am na loo xam ne mënta ne parce que dafa am lu ñuy wax idéal politique am lu ñuy wax réel politique quand tu es dans l'opposition nag tu parles de l'idéal nañu wàññi suukar nañu wàññi ndox nañu wàññi diwlin nañu nañu renégocier contrat yi nañ def c'est un idéal parce que peut-être xamoo la ca biir lan la mais boo demee ba xam li ci biir tu es confronté à la réelle politique maintenant nag da ngay nekk dans une position paradigmatique parce que da nga naan wop maa fi diggee woon lii waaye lii moo am la ma diggee woon mënta nekk te malheureusement les hommes politiques ne reviennent pas vers les populations pour dire la ma diggee woon mënul nekk ndax sàngam ak sàmmagal sàng te loolu mooy jur violence moo tax ma ne la désinformation bi non seulement dafa doy mais il faut que ñu expliquer nit ñi parce que ça va contribuer dans l'avenir à pacifier l'espace politique bu dul loolu booy dinañ dal seen kaw et ça c'est sûr et certain parce que ils leur ont promis monts et merveilles mais ku yàgg ci système yàgg ci état xam nan la état di doxee xam nan la yenn contrat internationaux yi di doxee xam fi Sénégal toll ak li nga xamante ni nii moom la ñu am la ñu mën la ñu mënul la ñu ñàkk la ñuy wuti la ñuy wàll yaan la ñuy leb am na loo xamante ni doo ko sañ a wax wala boog boo ko waxee tu la le dis de bonne foi donc espoir boobu noonu dafa rëy torop pour les pour les possibilités du Sénégal c'est-à-dire espoir bi moo démesuré par rapport ak possibilité ak marge de manœuvre yi Sénégal am mais quelle est la première conséquence aujourd'hui de l'élection de Bassirou Diomaye Faye alors euh, les les choses commencent à bouger euh, les sept sages euh, se sont installés euh, je pense que c'est le président élu le tout nouveau président élu